Ah, jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullahi wa Mang leen di ak sant ah, imam ban, imam di la ziar ah, di ci évidemment chef de village cher Ibra Fall yu fi di leen délégation délégation bu ma de soxna Moumi Ndiaye ànd Atou cham muy suñu coordonnateur fi ci Tivaouane soxna Abibatu ak Bamba sila ñom Nous andal ak suñu sécurité bi yépp fi ci euh, Touba Kafal euh, ñu ngi leen di nuyu di leen remercier d'abord fa laay

ci kanamu imam ak ñëpp remercier ko bu baax a baax ci jàppale bu ñu def ci parrainage parce que parrainage yi ñu ngi lay laaj lim bu takku bu mag ñëpp ci war a jàpp fii ci Sénégal mu am juróom-ñaari région yoo xam ne war nga dépasser ñaari junni parrainage loolu nag muy liggéey bu metti moom jàppale nañu su ma ñëwee ba fii fa lay tàmbale di ko remercier ndax soo amulee parrainage doo mën a nekk candidat à l'élection présidentielle doo mën a nekk président de la République

wax naa la ko dañ ko war a yëkkati ko fu mu wara nek nekk ndaxte tubaab bi ba mu demee ba xam mi ngi waja gagné suñu mami dafa lak université de Pire daanaka donc xam-xam bu fa newoon ñu bind ko ci ay téere yépp mu lakk ko yaakar ne loolu effectivement dana disparaître mais xam-xam bobu donté amna livre yo xam dé dégg naa ne suul nañ leen wala yéen ñu lak leen mais xam-xam bobu mi ngi law ci xelu wa Pire ci sëtu xaal xaali Amar Fall ci seeni i dënn ñu continuer di dem ba ci Cheikh ibre yi kon nag la mu wax ànd naa ci ànd naa ci ci ñaar wala ñetti mbir nee na déglu naa ko bu baax ne mag yi ñoo jël réew mi teg ko ci raay bi jiital jeunes yi ñu liggéey loolu lañu fas yéene def fii ci senegal senegal dafa war a tegu ci raay xale yi liggéey yóbbu ko ci kanam fu ñu koy yóbbu nee na ambition am mooy tubaakaam yi melni dubai mais l'olou moy ambition l'olou moy ambition waxna deug man japp na ne Sénégal ci bir Afrique de l'Ouest warna suñu limé fukki économie yu gëna réy ci aduna bi France bok ci ak Inde bok ci wala États-Unis mais Sénégal daf ci wara bok daf ci wana bok quand même fi moy dëkku xaali Amar Fall fi moy njëkk Serigne Touba si Elage Malik mi ngi fi, so soo demee ñom ñom ma ba Jaxu ñu nga fa Cheikh Anta Diop tay moy centenaire am yakarna na wala démb en tout cas ñu ngi koy feete dëkk boobu yàlla fàttewu ko Yalla nak la mu bëgg moy ñu dëggu Yalla dafa bëgg ñu dëggu ñu sam sen cadeau. sëñ Mountaga Bachir xalif général di Mouride yal na fi yàgg te wér bu ma ko seetsee di ko ziar Porokhane ziar rek moom fa yóbbu woon mu xool ma ak ñu ma àndal mu ne ma Mamadou Lamine ma ko naam mu ne ma bu ma nekkee lu ma nekk ba pare am lu ma am am ba pare dama fas yéenee nekk nationaliste bu sel maa ngi leen ciy ñaax loolu mooy lan moom la Cheikh Ibra wax léegi dañoo war a bëgg suñu réew dañoo war a fonk suñu réew mais réew boo xam ne effectivement ku am visa Mexique wala États-Unis nga yaakaar ne yaa ngi àjjana mais nax nga sa bopp ba doon liggéey banque mondiale du ma guddal sax ma amoon benn japone yàlla def rek mu bëgg ma bokk na ci lu bari lu ma jàngal mu ne ma xalaatuloo Japon xalaatuloo Japon japonais bu ñu formé mu am xel am diplôme am lu mu mënta doon muy dem liggéey bitim réew c'est impensable c'est inacceptable au Japon donc ñun lu ñuy tiitaree lu ñuy titéro ñun fii di Sénégal mais gàcc la ci Japon effectivement munoo jël sa doom yar ko jàngal ko lu mu war a xam nga jébbal ko canadien yi mu liggéeyal canadien yi amul sens loolu nag dafa war a dakk fii ci Sénégal man ci loolu laa leen di woo ci dëggu ci liggéey ci fonk sa askan fonk jigéen ci loolu laa leen di woo ci programme bu leer ne ngeen amu leen engrais évidemment soo leen jëlee acide phosphorique bi joxo indien yi mu dem Inde ñoom ñu defar seen engrais ñëw di leen ko jaay doo am engrais ku ko def man maa ko def ñoom Macky Sall ñoo ko def yéen a wotal Macky yéen a wateel Aly Ngouille Ndiaye dem naa ci biiram ni ko Aly Ngouille Ndiaye lii c'est pas normal man mii toog ak moom face à face man ni ko mënu leen jël lu mel ni ICS ak phosphate suñu phosphate mi fii yëpp phosphate ñu def ko acide phosphorique war a defal engrais ngi jël usine bi jébbal ko indien yi ngeen ne c'est normal ci indien yi luñ ko jëndee dégg naa ne bateau acide phosphorique nañu jaay ci seen bopp nous sommes ñom ñu ñoko nous ñu jaay ko jëlé ci buñ ci jënd jënd usine bi donc ñu nax ñu ñaari yoon wala ñetti yoon dama né nañu wax Sénégal nañ ko tek ci dëgg ci raay C'est tapal yoy nañ ko bàyyi yalla ko sallallahu alayhi wasallam Touba Cheikh Ibra Fall ci loolu fi ci Sénégal

kenn ci ñoom du ko def muy Macky Sall muy Amadou Ba muy keneen ak keneen kenn ci ñoom jaralu leen ko ñu bàyyi al dollar ñoo ji fay français fay ñu ñu dévaluer kon nag nañu jublu ci liggéey bi nañu jublu ci liggéey bàyyi tàppale jigéen ñi foo dem Sénégal dañ lay jooy ci financement ñu ñeen léegi nag lu xew mooy calebasse calebasse a calebasse laa xamul mooy lan saytu naa ko yaakaar nga ni suñu yaay yi suñu soxna yi ñoom dañu mengo calabas man goomu ko ñun de ñun lu ñuy woote mooy banque populaire banque populaire boo xam ne 50 milliards laa wax de capital nañ ci dugal muy jàppale jigéen yi muy jàppale ndaw yi te 50 milliards sénégal am na ko ñu ñuy woyee der der 15 milliards par an la ñu ngi koy yàq chaque année 15 15 15 15 milliards 3 ans muy 45 milliards donc Sénégal a 50 milliards bu ñu jël ko banque populaire mu jappalé mu les jeunes ngeen soxla mais ay 100 000 francs ñu 1 1000 francs di tourner évidemment dana la jappalé comme benn femme la Vous par mu ne wa jigéen ñi ne leen jappalé Vous touti soxla wuñu Vous touti suñu ambition ëpp na lool. dañoo bëgg fi melni Dubaï wax na dëgg dañoo bëgg Vous Dubaï Matam Dubaï ñom ñi au Sénégal nous ñoo am ay appartement Dubaï Nous ñoo am ay appartement Dubaï xaliss bo fuñ ko jëlé xaliss bo lolu mo wara a fi ci Sénégal mën na 25 février na ngeen ñu wotel amna ko ko wax ngeen jëli sen carte d'électeur yi ngeen Diallo tekki coalition MLD 2024 ñu changer ko ci ray xalé ñu jiital xalé ñu liggéey mën na nekk nañ jël ci ambition boobu ci loolu laa leen di woow ci loolu la ñuy liggéey bés mu nekk ñoom soxna moom ñu ngi ñi jàng nañu ay informaticien lañ xam nañu àddina bi ragaluñu tubaab bi am ñu benn complexe tubaab bi ñoom ñoo yore gouvernement bi ñoom ñoo ci liggéey lu mën nekk na kon nag léegi man ci loolu laa leen woow léegi nag projet yoo leen fi am Cheikh Ibrahima ñu ngi lay gërëm di la sant parce que wane nga yoon bi lu commune piir war a def defuñu ko yow nga takku woowaa dëkk bi ñu ci liggéey muy maternité muy muy muy muy muy muy jumaa ji muy muy école nen la ci fekk si nen la ci fekk si man duma politique juma fu ma dem loolu lay wax su ma demee ci ay village na ma juma ngi nga ma nekk du ma ko politique parce que loolu sama diggante ak yàlla du ko foye lu jëm ci jumaa ji man sama famille am nañu fondation samay rakk samay sœur ñoom laa koy dénk ne leen am na fi fondation jàppale leen jumaa sangam ngeen def ko mais man duma ko politiquer parce que lii mbirum yàlla la du fi ñëw di jigee loo xam ne yàlla mën na maa mere suba wala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala Serigne Touba dama bëgg Cheikh Cheikh Ibra loolu mu leer man duma politicien ñëw ma fi pour nax leen soxlaw ma ko ñëw ma fi pour pour parce que ñoom dan lu ñu bëgg mooy politique nax leen dem jël alalu réew mi jël suufu réew mi ñoom ñu pàccoo ko ñoom ak tubaab yi ñu jël seen appartement France wala Dubaï loolu lañ fi nekkee te loolu amul ñu jëriñ gis nañ ko xale yi ñu ngi jàng ay master chômeur ñoo fi nekk fii ci Sénégal ay licencié chômeur loolu moo fi fees te loolu lu ko mën a génnee wax naa leen ko nañ fi andi ay usine xale yi liggéey

jumaa ji kooku samay famille sama rak ñoom naa leen ñuy toppatoo lii ñu jëm ci maternité parce que ñun dañoo fonk jigéen waaw dafa bokk nag ci charte tekki mënoo nekk biir tekki te fonkuloo jigéen waaw ku fonkul yaayam man doo ànd ak man dama la koy wax ci njëlbeen mu leer parce que jàpp naa ne ku amul yërëmande sa sa yaay mënoo am yërëmande ci yaayu jàmbur mënoo am donc yërëmande ci jigéenu jàmbur

moo tax may woote ay pôle régional de développement yoon bi leer na suñu bopp waa Touba yàlla xam na ne leer na suñu bopp ñu ngi ciy liggéey passé na fanweeri at war naa àddina bi yëpp di jàng lu tax tubaab bi raw ñu ñoo di jàng lu tax naka la japonais yi def ba ba yem fu ñu yem naka la indien yi def naka la waa waa Singapour waa Hong Kong yi def naa fa wër naa fa waxtaat naa ñoom seen njiit seen i seen i seen i borom xam-xam yi yooyu yëpp def naa ko wër naa àddina bi

français yi fu ñu taxaw ñu taxaw fa chinois yi fu ñu taxaw ñu taxaw parce que àddina bi ñu ñëpp ñoo ko bokk parce que yàlla nee na wala xat xaram naa bani aadama waxul chinois waxul turc ñun ñëpp ñu ngi ci biir ñu xam ne ñu ngi ci biir nañu góorgóorlu suñu góorgóorlu incha allah yàlla dinañu jàppale te suñu jàppale fu ñëpp toog mën nañ fa nekk xale yii di chômé dinañ am liggéey teral seen waajur loolu leen bëggoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu